jar naa tiit ndax boo moyul nag dina am dog-dog ci li nga xamante ne mooy stock yi maanaam mu daal di jeex nemmeeku bi nga xamante ne tamit direction du commerce intérieur war na ko ci def loolu yëpp mi ngi ci biir réew mi quotidien ci biir libération ñu ngi ñuy xamal tamit ni ngir fexe ba dëppoo ak njëg yu yees yooyee lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaari commerçant daal dinañ leen woolu gannaaw ñeent téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ñi kon mujj na leen saytu maanaam contrôler leen ba xam dëppoo nañu ak njëg yooyee nga xamante ne état ci boppam moo ko samp accélérer la cadence maanaam baral loxo bi ci xeex bi ci wàññi njëg yi moo tax Sud Quotidien di ñu xamal ni campagne bi nga xamante ne moom la ñu jagleel saytu njëg yu yees yi daal dinay door ni ki démb ci ndakaaru am na ci ay marchandises yi nga xamante ne teg nañu ko loxo te service régional bu commerce daal di koy def service bi ci boppam di waajal sax ay daan ñi nga xamante ne kon dëppoo ñu ak dogal bi ñàkk dëppoo ak dogal bi moo tax ci le témoin yéene kaay ñu ngi ñuy ni état ci boppam tàmbale na rëkk ndigg ñii di commerçant yi presse bu Sénégal la ñu tàmbale rëkk ndiggam bu ñu sukkandekoo ci le journal yéenekaay bi di xamle ni kon li ko waral bokk na ci combat bi nga xamante moo jëmoon ci wàllub dépénalisation des délits de presse moom la taskatu xibaar yi ci seen bopp daal ñàkk moo waral tey ñuy dund yi lay xeetub xoxotal xoxotalam déet Mamadou Thior moom ci biir Le Réveil ma ngay mel ni kii artu di addu tamit jëmale ko ci ay nattangom taskatu xibaar njiital koret dikkaat ci li nga xamante mooy article di artu ci li mu jàppee ni kon baaxul euh, taskatu xibaar yi gannaaw ba ñu tegee loxo Pape Alé Niang ba léegi mu mel ni ci biir yéenekaay bi di Le Réveil Seydi Gassama ak ñi mu àndal dañ ciy fas yéene dugal seen loxo allié Macky Sall yi ci Benno Bokk Yaakaar ba léegi dugalaguñu seen làmmiñ ci coowal ñetteelub mandat Walf Quotidien duñu xamal ci xëtam bu njëkk dafa mel ni sagara ngay xeeñ ci biir coalition présidentielle bi li ko waral mooy ñàkk taxawaay bu wër bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall am na ko ci coowal ñetteelub candidature li am ba am ñetteelub candidature moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal ca APR daal di sumb ay opération remobilisation ak wàllub njaayum carte bi nga xamante ne nañ koy door ci njeextalu ay bis bi ci Vox Populi maître Omar jiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yëkkati ci ay kàddu di indi leerange di xam ne ni li waral taxawaay bu bi mooy fexe ba desaat ci nguur gi waaye tamit fexe ba askan wi nekkaat ci seen boor ki wax ci askan wi wax ci fi ñu leen di bind ci fichier électoral l'observateur def na ci gëstu bu yaa wax ci li nga xamante ne moo ñeel révision ordinaire bi mu jàpp ni kon am na ci li nga xamante ne moo jëm ci nombre d'électeurs yi bindu mu njott ci sax ab violation loi ñeel élection présidentielle 2024 yi Samba Boy yi wane woon seen bopp ni ki démb ci pôle urbain bu Diamniadio yéene kaay yu bëri dikk nañ ci tey bokk na ci réew mi quotidien le quotidien yéene kaay naka noone bis bi le jour yéene kaay di ñu xamal ni kon sandarma yi mujj nañu teg loxo ñaar ci ñoom am kenn ki nga xamante ne dañu ko faat gannaaw ba ñu yëkkatee ay sox jëmale ko ci ñoom ñu jëm ci wàccaayub coupe du monde bi enquête temps de jeu bi nga xamante ne gaynde yi am nañ ko ci seen club ba saison bi dooree ak léegi ñuy xam le ni kon Seny Dieng Sadio Mané Iliman Ndiaye ñoom ñoo jiitu wala bokk ñi ëpp ci li nga xamante ne jongante nañ ko ci seen club ci jamono ji nga xamante ne Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak Gana Gueye dafa mel ni seen form moom wàññeeku na waaye Alfred Gomis Pape Matar Sarr ak Famara jéeju ñoom ñoo nekk ci ndadd gi ci li nga xamante ne wane nañ ko ci seen club Sénégal li mu wane ci ndorteelu at bi boobak léegi moo tax ci biir réew mi sport Didier Drogba jàpp ni gayndey ñoom ñooy